FM ñu dikk ak yéen ci xibaar yi. El Hadj Ndiogou li ci gën a fës euh, koppar yi toll ci ñaari milliards ak genn wàll njiit réew mi jox cadeau Noël artistes yi ministre bi yor wàllum aada ak cosaan doon dajeeg artistes yi sànq ci suba gi mbas mi di coronavirus wéy di yóbbu bakken ci réew mi yeneen ñetti nit faatu nañ ci lépp téeméeri cas communautaire am nañ ko bésu tey euh, catholique yi di màggal Noël di mandargaal yi judduk Yesu Christa ñuy waajal xew-xew bu baax naka noonu tam ñii di jullit yi euh, coow laa ngi wéy ci bëgg-bëggu Mansour Faye tuddee Sall xal yu gën a mag ca Ndar di avenue Charles de Gaulle ay doom mu ndar eh, di sàkku ñu teg ci suuf eh, ba jubo am a suñu gëstu tey jëm ci ñu jagleel ko këru liggéeykaay gi di wari wari nga xam te ne jamono ji eh, jafe na mu wari jamono ji ndax problème xibaaru bitim réew premier ministre bu Mali bi woon bu Boubou Cissé xam ne ne jéem mut gàllankoor benn yoon transition ba ca réew ma tàggat yaram football équipe bu France bi di Paris Saint-Germain dàq nañ seen entraîneur di Thomas Tuchel Euh, daañu ci euh, yaatal loolu bu buñ ci noppee ñuy dox tey rétro yi di xew-xew yi gën a fës euh, ci atum ren ji di 2020 ñu koy doolee ak wàllum société tax nag ba journal bi sax dina gën a gàtt ni mu daan am ne mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne su dinañ ci ay faram-fàcc El Hadj mbokk yi ñu leen di nuyoo di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru diggu bëccëg yi dañ koy door ak ñi nga xamante ne ñooy artistes yi dem ba doon amal ab toogaanu ñaxtu ca place de la nation ngir sakku nag ñu bàyyi leen ñu def seen liggéey rawatina jamonoy faj ji ñu nekk njiitu réew mi nag génne na koppar yu toll ci ñaari milliards ak genn wàll yoo xam te ne koy dimbale ci jamono ji nga xam ne ñu ngi ciy jafe-jafe ñoom artistes yi sax ñaari colère yi ëmb tey jot nañoo daje ak di ministre de la culture de la communication Abdoulaye Diop mi leen yeggee xibaar bi waaye nag mbir yi di yomb lool rawatina lu jëm a ah, ci séddale koppar yooyu ñu jagleel ah, ñiy yëngu ci wàllu aada ak cosaan ana juróom benn weer ci ginnaaw njiitu réew mi Macky Sall jëloon dogal dugal ñetti milliards ci suñu koppar ngir jàppale ñi yëngu ci wàllu aada waaye nag anam yi ñu waroon a séddale koppar googule jur coow bu mag seen diggante loole le professeur Ibrahima Wane di wax crise bu jur crise effectivement juróon na coow lu bari euh, ñetti milliards moom bëri na bëriwul li ko andi mooy mbetteel bi mbir mi bett nit ñi ñaareelu mooy li ñu du yàggee noonu moo taxoon xëy na mbir mi xaw a xaw a jaxasoo ba créé sax crise ci biir crise bi fukki weer a ngi ni ñu toog liggéeyuñu ko gannaaw bi ñu yëkkati seen baat nguur gi daal di taxawaat génne ñaari milliards juróomi millions ci suñu koppar waaye nag boo moyul beneen coow la fi nar a jur bu ñu sukkandikoo ci Aboubacar Demba Cissokho nekk journaliste culturel 3 milliards yooyu lu mu fajul gisuma ma hein? fan la deux milliards 500 millions yi bu mu koy fajee. bu ñu bëggee jàppalee dëgg-dëgg ñi yëngu ci wàllu aada fii ci Sénégal ñaari saafara moo mën a am mooy ñu bàyyi leen ñu liggéey beneen bi nag régler yenn problème yi nga xamante ne buñ ko defee duñu amati pour tàllal loxo. loi yoo xam ne dina tax ba artistes yi li ñuy def ñu mun ci dundee ñu mën ci am ay revenu yu takku. defoon nañ fi loi sur le droit de et les droits voisins 2008 am na benn disposition boo xam ne ñu naan redevance sur la copie privée mu am ay taxes yu ñu ci def bu ñu ko defee normalement ay répartition ci année bi artistes yi mën nañ ci am lu tax loolu ba léegi kenn appliqué ko. ndaje bi nga xamante ne moom la ñu doon amal niki euh, ajuma ji ca ministère de la culture waroon na nekk occasion nag ngir tekk ci kaw table bi loolu yëpp le bu ñu bëggee dëgg-dëgg secteur art ak culture suqali ko. ana Rocha secteur art ak culture nekk ci jafe-jafe ndax mbas mi di coronavirus euh, tolluwaayu mbas mi nag euh, ci Sénégal euh, nag tey jii nag am nañu lépp téeméeri cas communautaire ñi faatu nag di ñetti bakken loolu weesu lool tamit test tey jii nag ëpp na ñaari junni te test leeral yëpp dañ ci ànd ak Awa Mbaye tey wàññi yëpp dafa mel ni mi ngi yokk diggante démb ak tey xayma yi soppeeku na jëm ci li nga xamante ne mooy ci ñi amee jàngoro mbas mi ci Sénégal yokku na ci lu toll ci juróom fukk ak juróom-ñeent boo ko méngalee ak démb tes yi nga xamante ne nag daf nañ ko tey mu toll ci ñaari junni ak téeméer ak juróom-benn fukk. yokku na tamit lu toll ci juróom téeméer ak ñaar fukk ak benn diggante démb ak tey ñaareelu wàgg bi nag mu mel ni mu ngi dëggal boppam ndax li nga xamante ne mooy wàllent bi ci biir askan wi di transmission communautaire yokku na bu baax ba yegg sax ci téeméer ndax tey ci xayma bis bi wax nañu ne téeméer yu teg benn am nañu jàngoro ji te xamuñu fu ñu ko jëlee loole nag boo ko méngalee ak démb lu toll ci ñeent fukki nit ak ñett yokk nañ ci wàññi yooyee chiffre nag di wane ne doomu jàngoro ji mi ngi wër Sénégal bu baax sax diggante Kaolack Ndakaaru Daara ak yeneen gox yi nga xamante ne lim nañ ko tey ci communiqué bis bi. junni nit yu teg juróom-ñaar fukk ak ñu ngi leen di faj ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ñoom nekk cas lii nag boo moyuwul dina yokk ndax ñàkk respecté bi jëm ci geste barrière yi rawatina ci feetu famille yi. pour man RFM mooy rajo bi gëna jëgé askan wi. RFM radio bi jaamu seen soxla. oui ci xibaar yi gannaaw bi na xal tegalee juróomi minute euh, tay 24 euh, décembre euh, ñi di catholique yi di màggal jëdduk yetu Christa ak Noël ci lool nak ci guddi gi dañu amal ay messe yi jàngu yi nekk ci réew mi yëpp ngir daldi di fàttaliku juddug Yesu Christa la loolu nak tay ji ci ngoon ki di archevêque bu Dakar monseigneur Benjamin Ndiaye nim ko baaxoo di defee dina amal message de Noël loolu bu cinq heures jotee lay doon waaye ren ji nag ak mbas mi di coronavirus ak euh, li mu laaj tax nag ba ren ji du nag dajaloo janook taskatu xibaar yi bu muy def waaye euh, ci site internet bu Oficom lay def li di déclaration bi moom archevêque bu Dakar fële ca Sédhiou ca paroisse Saint-Jean évangéliste bu Sédhiou kon ñu ngay waajal messe bi ñu war a amal nakate ji nee na nag daañu rek sàmmonteeg digle yi ka docteur ci jamono mbas bi ñu nekk leeraleeg mag ci nu a magalee Saint Jean l'évangéliste Danaka ay waxtu rek des ngir ñu Krisa, juddu Yeesu Kirista gannaaw bu ñu dundee ci anam takku di temps avant di ay bëss yi nga dañuy dalal kidi di Yeesu abe abi Yves Manga mooy curé paroisse Saint Jean l'évangéliste bu Sédhiou. bo bo bu ñuy waaj sunu borom dafa ñoo digal ñu mëna préparer ko bu baax def lan ñi changer sunuy xol changer sunuy waxin changer sunuy jëf ni yalla lu ko parce que ki di ñew ko yàlla la moo tax ñun catholique yi yàlla dafa ñoo sant digaale ñu ñu tuub tuub suñuy baakaar topp si yoonu jub yoonu dëgg ci ab dalal Yeesu Krista bi communauté chrétienne bi war a dund ci waxtu bi nga xamante ne mbas mi coronavirus mi ngi law waaye dañ koy amal ci topp digle yi ñu ŋànk wér-gu-yaram bi amal loolee xamal curé paroisse Saint-Jean l'Évangéliste bu Sédhiou nañ ko màggal comme lu mu waree wante ñoo ngi ñaax comme nañ ko yàggee def defi bu ñu ibbee jàngu yi ba léegi képp kuy ñëw na takk sa max boo ñëwee raxasu sa loxo comme ministre de la santé mu ñu ko diggalee ñi koy def sunu njiit yi évêque yi monseigneur yi tamit diggal ñu ko santaane ñu ko ndax buñ ko defee ñu mën a mucc si mbas bile ndax nowel xam nañu feetu jàmm la de Yeesu Kirista bii di ñëw moom la ñu bëgg a màggal si jàmm ak teraanga ak jekkaay nowel di ab feetu jàmm ak bane loolu lañuy ñuy sàkku ci fidèle chrétien yi ci waxtu bi nga xam ne dafa spécial ak it bés bu nekk ci seen dundin Max Euclide Kamfani ci Sédhiou ngir RFM. Max Euclide Kamfani lu weesu wàllum dine ji meeseek yooyu muy am bu ci feetu nawel yi tax nag ba fi mu toll ñu bëri ñu ngi koy waajal moo xam catholique yi nag noonu tam jullit yi restaurant yi nag euh, ñu ngi euh, ñu fay dem ngir wut bûche de nawel ay waaye tamit di dem ci bërëb yi nga xam ni ne daañu fa jaay sapin wala euh, fowkaayu xale yi reportage mu kalsum lii ambiance bu xumb moo am ci boulangerie ak pâtisserie bu mag bi nekkee ci xolu ndakaaru ca bunt ba nag ay vitrine yu ñu orné ak ay sapin ak i ours ba mu rafet mu nekk décor bu rafet ci gis-gis Mamadou Ndiaye di jullit moom dafa ñëwoon jënd si benn bûche ngir bëggeel njaboot gi ci jamonoy mbas mi. bus la jënd si pour les enfants. fête moom mënuñu wax ni fête euh, dina am euh, contexte bi moo tax fête euh, du am. yoon la jëndal ko xale rek bus rek après bon le soir voilà c'est c'est fini quoi. xale yi ñoom fête ba au-delà de 20 heures dañuy lekk tëdd nelaw bon y aura pas de fête quoi. Ibrahima dip waajur moom it mu ñëwoon jënd si ay gâteau ngir féete nawel ak njabootam mu japp ne nawel ñepp ko war a féete. mo ñi ñu koy kiyal jagal donc ku nekk war nga def comme musulman donc la religion toutes les religions se valent. donc c'est le monothéisme euh, je pense moi je ne vois pas de différence quoi parce qu'on croit à un seul Dieu. ba légui ci bir ville bi benen boutique buy jaay ay jouets. fi benen ambiance bu xumbu mo fi am ay parents yu ñew jënd ci ay cadeaux ngir bégal xalé yi. cyber nekk kenn ci wajur yi. jënd naa ko cuisinière. ak tablette ay trottinette et cetera xale yi bëgg fin d'année bi yegsi na ba pare butiku Ndakaar yu bëri fees dell la def ñu ci bëri di ay jullit ñëw ngir jënd si ay cadeaux ak i gâteau ngir neexal fête bi nu mu waree ak njabot gi. ñu ñaanal euh, catholique yépp euh, feetu jàmm joyeux Noël ñu fatlé né RFM dina and ak yéen ci messe de minuit messe euh, Noël bi lolu nak bu 22h jotté lay doon en direct ci cathédrale bu Dakar ñu ci and ak yéen ak Jo Maron tax sax ba journal français bi tay kon dañ koy avancer du doon 22h 21h30 la and ak yéen ci xibaaru français yi ci RFM. ak RFM kumba tàggoon ak yéen wax ci coow li am fan yi ca ndar eh, kii di eh, meex ba eh, Mansour Faye jël dogal ne nag xalu fa gën a mag di avenue Charles de gol da koy tuddee président Macky Sall nekk tam gorom dogal boobu nag ay doom mu ndar yoo xam te ne ci ay wàllu yu bari lañ féete ñoom nag ànd ñu ci neneen daal buñ ñu sañoon ñu toog waxtaan bu jubo am ñu teg lépp ci suuf waxtaan bu juboo loolu moo gën a Amadou Diaw bokk ci ñi nga xam ne ñoo xalaat xalaat boobu

Ndar dafa am ay doomam Sénégal ay doomam Afrique ay doomam ñoon ñëpp mën nañ leen dox jox tur mën nañ jox seen tur kon ñun daal ñu placé la mais nañ dallu daal ñun daal loolu lañ ñaan nañ RFM bitim réew. xibaaru bitim réew Georges Dete Diop lañ ci àndal Georges ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Ndiogou. wàllum Côte d'Ivoire lañ koy dooree foofu nag bànqaasu FPI bi ànd ak euh, Laurent Gbagbo euh, ñoom nag euh, nee nañu daañu bokk ci élection législative yi ñu fa war a amal. Front populaire ivoirien mu ngi ko xamle ci ab communiqué parti bu président bu Côte d'Ivoire ba woon Laurent Gbagbo boycotté na élection yi yëpp foofu ca Côte d'Ivoire fukki at a ngi démb nag la ñu xamle lu ni mel ca Niger fu sorewul fi nga xamante ne moo di Côte d'Ivoire juróom militaire lañ fa fatak fukki jihadiste alterne la loolee amoon ci ay combat ya amoon ci région bu Tilabéri ci ab communiqué ministère nigérian de la défense moko xamlé muné ab patrouille l'armée bi mom mo daanu ci ab embuscade bi nga xamante ay éléments terroristes ñu yoron ay nganaay yu bari nekkoon ci ay moto ki woto ci secteur bu Taroum ño def luni luni mel dem ba Mali foofu nag fa newoon premier ministre Boubou Cissé ah, moom nag euh, weddi na li ñu tuuma yi nee na daal moom laalewul dara ci lu jëm ci euh, yëngal réew ma. moom itam ci ab communiqué la ko xamle moom Boubou Cissé nekkoon euh, premier ministre foofu ca Mali ñu jëlee woon ko fa sax jamono ji ñu jëlee IBK ca bokku réew ma nee na dara laalewu ko ci li ñuy mandat wala li ñuy yëkk ni ay kaddu ne dafa bëgg a déstabiliser institution yi ancien premier ministre ba ne ay fan ngi nii muy gis ci réseaux sociaux yi ay projet de déstabilisation bi ñuy wax ci transition opération ba te ñenn ñi nga japp ne def nañu leen loxo ci euh, ci demi frère am bi agi, directeur adjoint bu agence publique pour euh, l'accès au Télécom, naka itam Vital Robert Diop nek directeur bu PMU bu Mali ak animateur radio bi di Mohamed Youssouf Batili ñukoy gën dem ba Éthiopie foofu nag ay nit ñu bëri daal nañ leen di faat ci euh, saw réew ëpp euh, ëpp nañ euh, téeméeri nit ñi nga xamante ne ñoom la ñu faat ci ab cong gi nga xamante ne ay nit ñu yor ay nganaay ñoo ko def ca région bu Béni Sangoul Goumouz coow li mu ngi am àllarba loolee la commission éthiopienne bi yor lépp lu jëm ci wàllu droit de l'homme xamle mu ne nag yor na ay firnde ay photo yi nga xamante ne mooy xamle ni cong googee lu am la te amoon fajar ñu fekk ay nit ñuy nelaw. fat leen euh, mbir mi nak wéy ba ngonuk alarba euh, congoogee nag nak modi euh, bokk na ci yi nga xamantene ne nam nem faral nañ koy gis fofu ci Éthiopie té muy tuké ci mbirum jéxalé Emmanuel Macron mi nga xamantene ne génn ci isolement ba mu néwon ab communiqué bu présidence bu France moko xamlé ñu né président bu France mom Emmanuel Macron fi wonetul sentom. symptôme mom nak dafa démon isolé ci résidence ba nek ci lanterne ci Versailles fukki fan ak juróom-ñaar ci wéru décembre gi ñu weesu gannaaw ko testé positif ci Covid 19 euh, Covid 19 bobé sax euh, États-Unis euh, kilifa yi yëngu ci million ci doomu ci Covid 19. merci beaucoup. xibaaru tàggat yaram la ñu yegg si ànd ceeg Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi maa ngi lay fay Alane Diop Dieng. Mm, door ko ak li ci gën a fës wàllum football ak Paris Saint-Germain mi tàggoog entraîneur bi di Thomas Tuchel. Thomas Tuchel tey jii si suba gi lañ ko daal di tekkil lii di nombal tànkam waa Paris Saint-Germain jël gilee dogal ci xibaar yi nga xamante euh, daanaka baaxul donte nag qualifié ci li nga xamante moo di huitième de finale La Ligue des champions ou jamono gi ma nga troisième place euh, ci euh, classement bu championnat de France ñu ànd seg Soda Thiam mu di xibaar boo dafa bette gannaaw victoire gu yaa gi nga xamanteni Paris Saint-Germain am na ko ci kaw Strasbourg gannaaw ba mu ko daanee ñeenti bal ci ñaar ci noné nak mom le club français bi dal di décider takali kok koy entraîner club bi di Thomas Tuchel mom allemand bobé nak mi ngi aksi won ci capitale française bobu ci été 2018 jot na ci jël ñaari yoon champion bu France waye itam jouer finale Ligue des champions saison guilé te Bayern daanon ko ca Tuchel nak dirigeant club bi xamal nañ ko ni dañuy tek ndombal tànk tànkam ni ki démb ci ngoon na te moo ni de contrat wam weeru pa juin atuma 2021 la waroon a jeexa bu fekkee nag première place bi nga xamante ni am na ko ci Ligue des champions taxoon na mu jàpp confiance ba wëyal situation gi nga xamante ni moom nañu gis ci wàllum Ligue 1 française bi nag moom moo ko xaw a xajamal surtout défaite ba nga xamante ni amoon na ko digganteem ak Lyon ak match nul ga mu def digganteem ak Lille bu ñu sukkandikoo ba tey ci équipe entraîneur bi def na ko ci benn chaîne allemande te mu yëkkati ci ay kàddu yoo xamante ni neexul état majoru club bi même sax bu fekkee ni ñoom seen biir dañoo wax ni que ni dogal googu jëloon nañ ko laata ñu doon ma gis interview gi mu def Thomas Tuchel nag ci googule interview dafa rek daal di waxoon que ni gëdd gi war waa Paris joxuñu ko ko te tamit dañ koy xaw a perturbé tuuti ci liggéey gi nga xamante ni moom lay def niki tey ji ci alxames gi ci suba nag RMC moom daal dinay xamle di Mauricio Pochettino nag moom moo nar a wuutu novembre atum 2019 la Tottenham daal di tekki woon ndombal tànkam waaye nag bu fekkee ni xibaar boobee firndeel nañ ko moom dafay mel ni rek kuy dellu ci këram ne moom ma Mauricio Pochettino jot na sol mayo Paris Saint-Germain atum 2001 ba atum 2003. Soda Thiam euh, Cheikh ñu wax euh, ci wàllum basket ak euh, ndimbal ku bu ñu jox équipe yi jógee ci ku nekkoon président Saint-Louis basket club moom nag di sàkkoon ñu dimbali leen. moo di Alioune Badara Diop doon itam adjoint maire bu Ndar moom nag la mu bëgg moo di maire bi gën a équipe nga xam te ne daal ñoom yëngu ci wàllu tàggat yaram rawatina Saint-Louis basket club ak ñi di waa Linguère bu Saint-Louis moom Alioune Badara Diop doonoon ganu li di RFM matin ni ki tey jii suba gi ñàkkul ni suñu yeneen i jotaayu xibaar di ngeen ko ci déglu alaaji ñu daal di jublu ci wàllum kiis waaw moo di génnum àdduna eh, kii di Adramé Ndiaye moom mi nga xam te ne ancien international sénégalais ci atum 1980 eh, moom nag jotoon na jaar ci club yu mel ni eh, bopp AS fonctionnaire ak itam Stade d'Abidjan moom nag tey jii suba la daal di bawoo àdduna ca Lyon ca France ñu fas yéene ko kon bokk jébal boromam ci fan yi la ñuy daal di ñëw ñàkkul ni si suñu yeneen jotaay xibaar dañu am yeneen ci information daal ngir mën a xam exactement kañ la ñuy daal di amal li nga xam ne daal moo di kii di dëjum kii di Adramé Ndiaye mom nga xamanteni ancien international bu basket fini ci Sénégal jot gagné sax li nga xamanteni modi euh, Coupe d'Afrique des Nations bu basketball. jaajëf euh, sëñ Cheikh. pour man RFM moy radio di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te yegsi ci gëstu bi ñu jagleel ko kër gi di Wari di kër goo xam te ne ki ko taxaloon di Kabiru Mbodj Wari ñu ràññee ren ko loon euh, Wari ma ko may ne tulleeg male ci woon Sénégal waaye te ji li ñu nemmeeku moo di ne mbir yi soppeeku na bu baax a baax euh, daanaka kenn war Wari ndax jafe-jafe yoo xam te ne kër googu mi ngi koy dund Barthélémy Ngom ci atum 2008 la ñu joxe woon départ bi Kabiru Mbodj di doomu Sénégal mi nga xamante ni dugal na loxoom bu baax ci li suqali xarale yu bees yi jëm ci koppar fii ci Afrique ca la lancé woon Wari di ab plateforme digitale ngir yónnee kay jot xaalis moom Kabiru Mbodj nekkoon ci jamono champion ci dawal fas lu leer la ngàlloo woon nay objectif ci bi muy sos wari looloo ko yóbbee woon mu jiitu sànni karawaas ci lu jëm ci yónnee kay jot xaalis fii ci Sénégal wala boog sax ci réewu Afrique yu bari noonu muy doxal wari di màgg koppar yi di dugg ci bi muy am fukki at ak ñaar la tàmbalee gëmm mbir mi soppeeku wari tàmbalee daanu ba fii mu ngi sooxe tax ay katam nek ci guddi gu bët setagul ñu bari nek nak di laaj li dal wari nii lumu Idrissa Ba di ko xam-xamam màcc ci wàllum kom tontu laaj bi situé ko ci ñaari patch bu njëkk bi moy manam en tant que structure ñu gis ay yeneen structure yu def li muy def ñu koy concurrencer. loolu mën na nek lu melni Orange Money wala yeneen ak yeneen il para que ñam ay structure yu bees yuy génne di def li war non doon def. ñaareel bi moy li xewul manam ci euh, ci mbas mi mbas mi tamit man nako expliquer pourquoi parce que ñu bari mbas mi dafa wàññi seen activité. activité économique day wari ci bu muy am juróom-ñaari at jàpp juróom-ñeenti at mu ngi woon ci wari mi ngi woon teew ci ñeent fukki réew yu Afrique ay ñu bari wala boog sax ñépp ñoo ko doon jëfandikoo jëndi crédit téléphone fay ay salaire ay pension bourse ba ci sax ay taxe boole ci nag facture ndox yu courant yi nga ci wari lanu ko doon fayee loolaa tax wari amon ndëgër laay toog toogaay bu jekk ndax xaalis baa ngi woon di dugg wari demoon sax ba bëgg a jënd tigo ci atum 2017 waaye projet bi fa ñëpp xam nañu ko mu jut a sotti am ñu ne nag loolu bokk na ci li yóbbee wari coono gi mu nekkee tey muy xalaat boo xamante ni na Thioune moom it xam-xamam màcc ci wàllum koom nangu na ko. bi ci am solo te mu njëkk mooy échec u bu jënd dugg ci service télécom bi ñu doon def doon jéem a jënd Tigo achat boobu antuwul ba tax na tey jii ma nga mujjee tribunal euh, arbitral du commerce bi nekk euh, Paris moom ak Milicom ku nekk def na demande pour ñu vidé ko ñaareel bi euh, te nga xam loolu li tax ba tey war yi ñu mën a jàngat ndërmeloom ak daanoom gu gu gaaw googu mooy aussi euh, am na benn période vraiment dafa amoon ay problème fiscal yu métti yoo xam ni tey indiloon na ko ba tax mu délocaliser siège am yóbbu ko si sous région bi. waaye nag du wari rek moo nekk ci situation bi fàttaliku ba léegi ndem si yàlla jooni jooni lii lépp ngir wone ne réseau bi dafa jaxasoo fi mu nekk li ko waral nag di concurrence bi nga xamante ni moom la porte monnaie électronique yi nekkee wari orange Orange Money Wave Free Money Youp visal Money amna yenen sax yenen ak yenen ndax nag Wari dina mën relever défi bi jógaat laaj bangok Universel Pousse. Electronic Corp Axen gambidi Beko. comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS Axen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. ci ci yéenekaay dañ ci ànd ak El Hadj Assane Gueye. ñi yëngu ci wàllum caada ci Sénégal mel na ni seenu njaaxle léegi mu jeex ndax ci observateur Youssou Ndour ministre conseiller du président de la République ma nga ca naan président Sall ci boppam dina am taxawu ci wàllum koppar jëmee ko ci ñi yëngu ci wàllu spectacle Youssou Ndour ginnaaw tànki jàmm yu mu ca dox am ca ndam ci ndimbalal ministre intérieur ak naatangoom bi ñu dénk wàllum culture ndimbali nag mu ne du bàyyi kenn musicien fecckat tëggkat bongo man ñëpp ñu bari ci ñoom nag ñoom acteurs culturels yi joxante woon ndaje daje démb ci ndakaaru ak diiwaan yeneen ci Sénégal ci ndakaaru ci Colobane laas xëy wane leen ak seenu takkook pasteefu yéenekaay bi jàpp ne seul fausse note yi mu ci gis nag mooy ñàkk teewuk star yu mag yu ci mel ni Wally Seck Pape Diouf Youssou Ndour Viviane ñoom artistes yi nag ci manifeste gi gis ne pexe amatul ubbi rek mbaa dee ca nag ñu ne xanaa du kilifa yi ñoo fi waxoon Sénégalu ñëpp Sénégal ngir ñëpp enquête xëy wane nataali di jaaw dég dëgati ñu masque wu toog farankulaayu ak Pastef gu mat sëkk bi yéenekaay bi ne Chanteur, danseur, manager d'artistes borom boîte de nuit ñëpp état bi ñu né melni ku dellu ginnaaw Youssou Ndour xamal leen ndimbal gu leen président de la république di wadjal. Fada Freddy né ñom liñu bëgg moy liggéey liggéey rek ngir sàmm seen ngor ñu mujj ci yalwaan président au conseil dialogue social batay ak enquête yene kay soxna Innocence Tam digue diggéem ndaje ndaje acteur ak acteurs culturels yi Tay ji ci Alhamis ji président Luntine mom ci sunu le le mu gis moy bu nu les acteurs de la lutte ndax ñom it faaw ñu déglu leen mu né. jiital xado di sàkku ci kilifa yi ñu toog ak ñu yëngu ci walu lamb ngir xool ci yan yoon lan mëna jaar bu ubbiwaat lamb ji te it duñu may nak virus bi occasion muy taxawaalu ci réew mi ngir saison 2020 2021 bu lamb ji sunu lamb xamal ñu sax ne ministre Makhtar Ba dina ci daje ak njiital CNG bi bi Sène samedi 11h ci suba lay doon virus bi nak mom ak feebaru vaccin bi mu àndaale ni Quotidien tuddee fu ne ay candidat vaccin lu toll ci fuk président Macky Sall mom lamuy muy sàkku rek moy ñu gëna yok surveillance gi may gëd gi ñël suñu frontière source a tiit ngir wa Daara Jolof mom ak coronavirus bi ndax mu ne ci benn bis dong diwan nga amna fanwer ak benn cas fuk ak benn cas communautaire l'hôpital ba ñu ne amul saal bu nu ber malade ya maire ba ñu ne mawu Njaay ci bopam nga xamne amna ci mairie ba ñetti agent yu am coronavirus ci gaax bu maraîcher bu dakar gi la bëgg tollu di yoré mairie ba coronavirus nak di balandé bawul dara ba ci fétuk Noël gi mu nara a xajamal wal fajri ne la guy am ci jamonoy coronavirus ak dëkk bu nakari dëkk bu dëgër walu politique khalifa ababakar Sall les écones ne sipna moolu walu entrisme maanaam koo xamante ni da ngay xaar rek mu tooy nga tag ndax nag mu ne moom ancien maire Ndakaaru bu fi woon démocratie gu wër day am majorité buy jiiteeg opposition buy opposé wu mu ne dum njaayu waaye xeex la ci lu sax ngir yokkute askan wi seen taw féex Vox Populi ne Khalifa ngay positionné wu nag ngir 2024 ci yéenekaay bi moom sëñ Sall di ci xamle ne la mu bëgg mooy fédéré boole mbooleem kàttan yi lënkale lépp ngir gàddul askan wi seen yaakaar kilifa politique geneen Idrissa Seck environnementale sëñ Mbay mujj na ko koo lankal sàkku na ci moom mu jéggal ko ko Thierno Alassane Sall moom doj wu rëy la ko yónnee moom njiital CES Idrissa Seck ci la tribune Thierno Alassane di wax ne su amoon ñaar yu mel ni moom ci réew mi Sénégal tas Sénégal nag su tasagulit sorewu ko sunu sukkandikoo ci kilifa gi di Ahmed Khalifa Niass ma nga naan moom sëñ Niass ci Walfadjri ba tey Sénégal dëkku scandale di njaaxum ak ger ku moywul nag mu ne it élection présidentielle anticipée dinañ ko am 2022 njaaxum weesuwul nag li Vox Populi xëye tey di ñaari professeur yu benn élève bu 17 ans an tuumaal ci ne dañu ko siif coow li xewe ci l'école njaaxe bu wakkaam l'école bi ci boppam moo nar a yàqu sax bu nu ci jógul ndax ñàkkum kilifteef gi ci biir daara yi observateur ne léegi lanu fay nemmeeku mooy ay compte Instagram yu élèves yi créé ngir di yàqantey der ak yeneen di partager ko yónnante ay vidéo ki nataal yu bon ministère bi ñu dénk wàllu njàng mi digg na nag ay sanctions administratives naam dàqul sa xalaatu toppe ba ci yoon président jàpp ne ram raam ci ñak bi la jëm ci suñu ci jogul ndax yenn taxawayu ñenn ci site information mën na dem ba mi bennoo gifi aada ji ba ci état bi ak dal gi ci pencu Sénégal. Universel Pousse. Electronic Corp ak seen di Beko. comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. ak savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yi. ñu koy gërëm bu baax moom Hadj Assane uh, ci li ci yéen kay mbokk yi foofu leen yem ci xibaar yi El Hadj Ndiogu moo nekkoon ci micro bi ànd ak Abdou ci machine bi Yacine Pouy ci digital ñuy gërëm bu baax Pape Oumar Diaw régisseur d'antenne ni ñu ko waxee kon ñuy tàmbali tey ci rétro yi di xew-xew yi gën a fës ci at